mën a mbokki jullit yi ñuy seetaan ci àddina bi yépp rawatina ci biir Sénégal euh, mbokkay euh, alquran ñi sopp alquran ñu ngi leen di nuyu nuyoo bu jóge ci kàddu suñu borom muy asalaamaaleykum wa rahmatullah ginnaaw lool euh, kii wax ak yéen seen mbokk la imaam Xaadim Ndiaye Euh, jiite euh, comité scientifique ci concours yaatal mbindum alxuraan bi nga xam ne euh, C3S moo ko initié ba pare ñu nekk ci édition bi nga xam ne mooy bu ñetteel bi ñoo ngi fii tey ci CICES war a def final bi final bi nag biñ ci daataan egg si xam ngeen ne jaar na ci étape yu baree bari jaar na ci ay dépo ci mboolem Sénégal ñu am mbooloo mu takku moo xam ne participer nañ.